ami deux tonot yéen ñu safoo 17 ans étoile jamono sa su nekk ñu leen di wax ni way leen di abonné chaîne bi chaîne d'actualité la tay nak ay ndaw ñoo jot ci Joal Fadiouth dal di mer ba futu lu leen lo ñu daan ni usine bi di Omega xaj na leen seen noy xaj na leen seen tawfiq xaj na leen seen afia ñu dal di dajaloo nak out ben collecte fassiyene dénoncer usine bi xex ko ba jëlé ko fi nga xamante ni moo di diwaanu Joal Fadiouth ci seen biir kàddu nag xam ne ni usine bi bu talé waxtu bu talé kenn dootul nooyi ñu daal di nag ragal nañ lool ci seen wàllu santé ragal nañ ci seen wàllu wirgi yaram ni usine bi am na lum ciy def ñu leen di wax ni nag wéy leen di seetaan tey abone tey partagé di leen wax ni chaîne bi chaîne d'actualité la tur bi ak sant bi. Euh, Mamadou Faye ñu gën maa xam ci Doudou Faye. waaw asalaamaaleykum. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonente bi. Euh, di rafet rafetlu teewaay bi. Hmm. bon te nag euh, je pense que li ñu fi daje mooy problème mu Joal Fadiouth bi nga xamante ne population bi yëpp ñu ngi souffrir muy usine Omega bi. Mm. Euh, nekk na euh, nekk na loo xamante ne depuis que ñu implanté ko fii ci Joal ay problème rek lay causé askan wi. sur tous les plans. Mm. parce que booy xool au plan sanitaire Joal ñu ngi ci commencé seetlu ay feebar yoo xamante ne. je pense que même vous faites dans na fi am sax bëri fi won mën nañu citer exemple tuberculose ak asthme bien vrai que ay feebar yu yàgg la mais impact bi mu commencé am ci au niveau de la population melul fi won non voilà ñaari feebar yoy nak bon je pense que mon na koo joxe comme exemple au plan économique tamit. usine bi bëri na lu muy impacté ci dëkk bi. parce que à chaque fois da gis ay ñëw borom boutique ay borom boutique yoo xamante ne bu ñu ubbee seen boutique di commencé jaay bu usine sax ñu pour tëjaat seen boutique parce que dootuñu mën a respirer tranquille ak yu demee noonu. li jëm ci géej gi tamit gis nañ usine bi euh, bu liggéeyee ni muy jëlee ay déchets am di ko verser océan bi loolu tamit day impacté suñu environnement. kon yooyu yëpp nekk na ay conséquences yu ñu usine bi di causé te vraiment amuñ ci benn solution pour l'instant waaw euh, ni ñu ko fas yéenee xeexee je pense que moom lañ doon waxtaanee tey ku ci nekk joxe na ci ay xalaatam mais li nga xamante ne moo gën a euh, urgent mooy ni ñu mun a mànkoowee ñun askanu Joal Fadiouth yëpp pour xeex ko euh, au plan juridique maanaam buggu ñëw génn di toj wala ñuy taal wala ñuy demee noonu comme maanaam dañoo nekk ci changement nekk ci état de droit bëggoon nañu combat bu ñuy mën a rek mu nekk combat bu responsable parce que fii ñu responsable ñoo fi nekk jaar fi ñu war a jaar jël ay yoon yoo xamante ne bu ñu fa jaaree mën nañoo am gain de cause ñu jaar fa pour am satisfaction mooy maanaam euh, exemple ñu dem gis euh, autorité yi déposer suñuy euh, suñuy. waxtaan ak ñoom waxtaan ak ñoom. waaye ba am li ñu bëgg daal ci ci ci usine bi. Mm-hmm. bon en fait collectif la. Mm-hmm. collectif la dañu toog waxtaan parce que on a jugé que war nañoo mën a taxawal benn collectif pour kaas si lii dëgg la na yàgg nañoo taxawal ay mouvement yu demee noonu mais dañuy dem ba ci biir mu mu échoué mais nag collectif bi dañ ko créé bu yàggul waaw nekkul groupe nag dañ ko créé bu yàggul pour di waxtaanee problème mu Joal Fadiouth ci yëpp parce que Joal nekkul usine bi kese moo fi nekk problème bëri na ay problème yu bëri yu nekk au niveau de Joal mais dañoo ne comme mooy problème usine bi kon nañu ko waxtaanee usine bi ba pare bu ñu paree xëy na dinañ jublu ci yeneen problème yi nga xamante ne moo nekk ci dëkk bi. bon ñun moom suñu objectif mooy usine bi jóge fi usine bi na fi jógee parce que usine bi ni muy impacter population bi métti na trop ba ngay am gan da ngay ruus waaye am na fi yeneen zone yi mu amoon mais gars yi dañ koo xeex mu jóge fi usine bi soxlawuñ muy yokkaat cheminée ci kaw pour odeur bi gën a yéeg soxlawuñ muy jël ay produits di ko def ci biir. Euh, ci biir machine am yi pour xet bi wàññeeku usine bi daal nañu abal suñu dëkk loolu la ñu bëgg xet bi Joal Fadiouth yëpp lay impacté Joal Fadiouth yëpp lay laal amul kuy nekk ci dëkk bi te xet bi du la laal da ngay dugg sa néeg da ngay yaakaar ne bon comme ni ko gars yi waxee lenn fa dee wala genre yu demee noonu moo tax nag li ñu bëgg mooy usine bi gaaw rek jógal fii si suñu dëkk bi bon exactement nag mënuñoo ne euh, am ci certitude à cent pour cent mm. mais am na ñu nekk ci mouvement bi ñoo xamante ne par exemple bu usine bi tàkkee da ngay gis mu commencé leen naa def ay ballonnement ñii da leen di wëcculoo ñii di leen mu leen di defloo ay nausée te en plus tamit euh, bu ma amusé wul ak cause d'avortement yi nga xamante ne bëri nañ ci ndëkk bi ñu bëri nee nañ usine bi moo koy moo koy causé voilà yooyu ay conséquences yu ñu usine bi di teg la waaw sama mot de la fin nag mooy di sant population de Joal Fadiouth rawatina ñi engagé wu yi nekk fii vraiment ay responsable kese fi nekk ay personnes ressources ay kilifa am na ñu fi jaar ba dem am na ñoo xamante ne vraiment bëggoon nañoo ñëw mais xam nañ ne Joal Fadiouth tey ak communion yi euh, ñu bëri du ñu am temps pour loolu ak ñenn ñi nga xamante ne ñu ngi foor ba di liggéey tamit loolu moo gën a tax ñëwuñu mais nag <coughs> mais nag ñu ngi sant ñëpp vraiment. bon combat bi nag xam nañ ne du nekk combat bu gaaw parce que fi ñu yoon yi ñu war a mun a jaar euh, pour abutir à notre fin loolu du gaaw waaw mais li nga xamante ne yoon may nañu ko ak fi ñu war a mun a jaar yëpp di nañ fi jaar. Euh, di ñaan nag nguur gi ñu taxawuñu. waaw vraiment comme rupture la ñu woote euh, war nañ mun a ñëw taxawuñu ci combat bi nii parce que euh, organisation des droits de l'homme li mu wax mooy proposer Euh, protéger askan d'abord voilà protéger askan wi nag askan wi buy souffrir situation yu compliquées ñom intervenir ci lolu vraiment merci. donc euh, bonsoir Djelil bonsoir à toute la population de joal Fadut et du Sénégal entier en fait. Donc aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés ici à Joal, donc euh, au nom du collectif de l'usine qui nous Donc quand on parle de l'usine qui nous on fait allusion à l'usine Omega, donc euh, aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés pour parler encore des dégâts que, l'usine nous cause, que ce soit dans le côté sanitaire et surtout dans le côté sanitaire. Parce que nous avons remarqué que depuis l'implantation de l'usine, nous avons vu l'augmentation des, des, maladies telles que la tuberculose et l'asthme. Et c'est plus fréquent chez les vieux et chez les enfants. Donc, euh, ce qui n'était pas le cas avant l'implantation de l'usine.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 quoi, quoi que l'usine la, lusine puisse injecter des millions, des milliards dans la commune, mais il nous tue. Donc euh, c'est ça l'importance. Et nous, en tant que le collectif de l'usine qui nous tue, nous, en tant que fils de Joël, nous disons non et nous voulons que l'usine dégage. C'est ça l'importance de la rencontre. Et nous comptons utiliser toutes les voies et moyens possibles et légal aussi pour pouvoir atteindre notre objectif. Donc nous allons utiliser toutes les voies de recours possibles, que ce soit judiciaire, médiatique, pour atteindre notre objectif. Donc c'était l'objectif de la rencontre. Merci. Merci.